salaamaaleykum waa àddina salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum àddina wërngal képp di leen wax ne yëkkati baatu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tey nag xew-xew dafa ñëw fii fekk si fi Gaston ci biir këram ah tubaarkàlla macha allah ko yàlla baaxal àddina am na perte Sénégal am na perte waaye làmb am na perte. ah ñu ñëw nag tey bëgg a jàkkaarloog waa kër euh, Gaston nu nu ko dundee nan la demee ci ñoom ndax tey ku mel ne Gaston ndegam ñun rek la diis ci ñun kon nu mu war a def ci ak njabootam ak kullu koo xamante ne doomi réew mi nga ah ñu jëm nag taataan tubaarkalla laaj leen ah macha allah salaamaaleykum saa saa Touba ko gis xam ne mooy làmb làmb mooy moom. mooy Gaston Gaston mooy moom saa ginnaaw bu ñu la nuyoo sant yàlla julli ci yonent bi barkeb Cheikhul Khadim ñu ngi lay ziar. waaye ñu ngi lay delloo ziar bàjjan bi. di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal jàmm ci barke Seydina Mohamed di ñaanal télé bi yàlla sama borom yokk leen ci barke tv ñëw tey ci xew-xew ñëw fekk la fii ci Gaston dëjëm bi tey ak njabootam saa sa diggante ak Gaston lan la waaw comme ni mu demee ñëpp rek ci ñun comme ni mu doonee papa ci Makan vraiment muy nit ku baax monument Sénégal la woon Sénégal ñoo ñàkk di ko ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fuuf fii mu jóge yàlla na bàmmeelam sedd guy ci barke Seydina Mohamed la muy njëkk a ci biir bàmmeelam yàlla na doon yonentu yàlla Mohamed sangam sang yi yàlla fay ko xolam ku mënoon a sonn ci doomu aadama la te na lu mu ci réew mi entreprise la woon dimbale na ñu bëri jàppale na ñu taxaw na ñu bëri tey seen bopp kon yàlla na ko yàlla taxawu moom ci barke Seydina na ko yàlla taxawu ci barke yonent bi sallallahu alayhi ñëpp yëkkatee ndoo baatu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tey soo amoon looy dénk njabootam waaw ñu xool fi seen papa tegoon tànkam rek ñu teg ko seen tànk ndax papam tey seen papa tey ku xool li mu liggéey ak li fi ñëw bu tey nga xam ne def lu baax rek moom solo kon nañu roy ci lii rek bu ñu xoolee ci lii rek danañ mën a baax insha allah te am nañ ci yaakaar ndax makan ku xool ni muy doxee xam ne vraiment euh, papaam dem na waaye xolam sedd na ci moom am na ngërëmul waajuram daal. baayam dem na waaye xolam sedd na ci moom luy sa kàddu waaye santaat Serigne Saliou rek di santaat Serigne Saliou di santaat Serigne Saliou bu baax a baax a baax jërëjëf. ngeen loolu saa Touba wax di nit ko yàlla baaxal macha allah ne ci réew mi fexe ba marqué fi empreinte am képp koo xam da ngay yëngu ci làmb ak ku dul ku yëngu ci làmb sax saa la mu ngi siqanteeg yow li nga xamante ni moom la ab jullit war a siqanteeg moromam la ngeen topp ma tey nag faali laa àndal sama turandoo macha allah ñu ànd ci hommage nga xam moom la ñuy rendre Gaston Mbengue ki ñu taxawal la di Max Mbergane ku ko xam xam ko ci làmb la xam ko ci Siteu sama doom ji xam ko ci Bécaye waaye xam ko nag ci garçon xam ko ci mboolem koo xamante ne rek caaxlu làmb nga dëkk Max ginnaaw ba ñu yëkkatee baati inaari laay wa inaari rajo nuyu nañ la ziar nañ waaw ñi ngi lay fay di sant yàlla bu baax julli ci yonent bu tedd bi gërëm suñu ñaari waajur di ñaan jaamu ci réew mi comme ni nga daaneelee rek naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaanal rek grand frère Gaston Salif Mbengue yal na ko yàlla yërëm xale ko aljanna Max sa diggante ak Gaston ku gis sa xol ni ngay waxe xam ne baat bi wàcc na xol bi fees na dënd bi tàng na waaye nag ki nga xam mooy kun fa yëkkun rek moo defati te bu ko sañoon tey ñu ñii kenn du fi taxaw waaw xam nga laaj nga ma ci koo xamante ni war naa ko mën a seede mhm. donte Gaston ndaw la guddi la waaye li mu cheminé ak man ci làmb cheminé ko kenn ci monde làmb ndax ñoo ànd ci début ñoo doon monte calaf bi maa doon monte combat yi maa doon fay mbëri ànd nañ fu ne war nañ tour du Sénégal dem nañu même Italie dem nañ sax France Bercy ci combat Balla Gaye 2 ak ak Balla Gaye mm-hmm. dem nañu Casamance mais li ma ci gën a marqué mooy bi ñuy yóbbul gala bi Ablaye Balde ca Casamance rebelle yu kariñu ba jam ci seen koo seen confrère boobu Iba ci lañ ko tiire euh, kon moo la yoon li ñu def bëri na. dëgg la dem nañu Saint-Louis. même Podor dem nañ fa làmb keroog dafa ma ne du ma mën a dem àndal ak Malick Thiandoum. Mm-hmm. Euh, ba mu tëgg dernier combat bi taxoon mu bàyyi avant muy dellu siwaat mm-hmm. combat Ama Baldé la ak Malick Niang bi mu jàllee la def retrait euh, toog quatre ans yoo xamante ne tëggul waaw bi mu dellu siwaatee nag man bi mu bàyyee ginnaaw ba dama yor écrit di ménager mm-hmm. ci laa ànd ak yeneen i waaw kon moo lay wane carrière am yëpp mhm. dama ci ànd ak moom mhm. mën naa wax ci lu bëri ci moom carrière am dama ci ànd ak moom mën naa wax ci moom lu bari ku gis Max fi mu dugg rek nga xam ne xam naa ki nga xamante ne mooy Gaston Xaali Mbeng yàlla na ko yàlla yërëm te yeexanu lan ngay ñaan ci ginnaawam ak looy dénk waaw di ko ñaanal rek di ko ñaanal yaara xarakaaw jànn ndax li ma gën a marqué ci ginnaawam avant muy génn àdduna woona mhm. ma max xanaa da may xeex man ne ko looy wax gannaaw mu ne ma ndax mën ngaa ñëw léegi ma ne ko waaw ma ñëw fekk ko fii mais lan ma dénk mooy njabootam jàppaleel ma kat xam nga loolu parce que feebar bu xasee ba toll benn ab makkan dafa mujjoon bàyyi ay activité yëpp ne ci papaam mais benn instant dafa woo beneen mbokkam mu ñëw toog bàyyi makkan mu liggéey waaw parce que bu concentré wu da koy xamante àdduna la ko doon wan. waaw euh, may la ma wax mooy jàppaleel makkan. Mm-hmm. kon moo lay wan xam na ne dee mënul ñàkk. mais bi jàng jotee jàngal na ay doomam. am na benn slogan nit ñi sax dañ ko ci daan ree. ndax loo xam ne du ma sànq sama njaboot te yonent bi daf ne maa leen gën ndax maa leen gëm ci njaboot ku la gën ci njabootu la gën xam nga bëgg njaboot weesuwul dem na ba lu ma ko daan tooñee li la wax nit ñi ree day wax sama doom yi jigéen sax ku ma ci maye doo génn kër gi da ngay ne fii ma nekk ma ne ko gannaaw li nga bëgg daa yomb de ah, nga xam ne moom dafa bëgg njaboot gas bëgg njaboot moo tax ba nii feebar bi léegi mu woo ne la jàppale leen makka nangam nangam toogul ba ni mu feebaree day coaché doom ku mel noonu nag soo ko ñàkkee di nga ko jooy mais doo ko naqarlu ma ngi ko métti nag ndax boo ko naqarloo day niru bokkaale ndax sunu borom li moom rek lay jël waaw ñu koy ñaanal rek yàlla xare ko aljanna mais ci gàttal ci gàttal perte bu mag la mm-hmm. yal ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xare aljanna yal na rëcc lu mu doon def fii baax na jërëjëf jërëjëf jërëjëf mag sa mbergaan ayca ayca ayca yàgg na ko waxal Gaston Xaali Mbeng ci biir làmb tey nee leen àddina perte na Sénégal perte na waaye ñoom ax lu làmb perte nañ tonton Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi noo dundee tey lii xëy wàcc wax rek ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nit ku dëggu dem na nit ku baax dem na nit ku mën a le nitam dem na Gaston daf doon euh, nit koo xam ne nitam jaral na ko lu ne lu ne yéene na ko nitam euh, dafay nit koo xam ne mm-hmm. euh, bañ ba ma nekkee man garmi mm-hmm. Thierno Ndiaye ca 7 FM mm-hmm. euh, daf ma yootu ma ñëw mu ne ma yaay sama microcentral 30 ans yi mu def ci làmb ñoo ko ànd maag moom waaye li gën a daw sama yaram mooy dañu ànd ñëw dajum euh, euh, cee takk maam Anta maam Anta keroog bañ koy takk euh, dafa dikk ba ci salle bi fekk ñoom xaar mbay ma a toog ñoom Kine Lam ñoom Soda Mama maa ngi ànd ak Thierno Ndiaye mu daal ne ku mbëggee ngoom mu ne ko mu ne ko ñoo ko bàyyi mi ma la doon wax a ngi nii maam Anta di wàcc ci escalier yi ne ko sama papa géwél bu mu mas a may na ko jabar mu lamb poosam génne fukki junni na nañ ko boole ci may gi tey ñu may ma ko bët set mu woo ma woo Kumba Gay Ngom ñu ñëw toog mu wàññi un million tekki sama lox waaw mu ne ko euh, lii neex na trop waaye sama nawle bii nga ma jox moo ma gënal xaalis bi na jël xaalis bi yóbbu këram mm. ndax million tuddul million melawoon lii la tudd ku ko yor changé na dem lu màggatoon këram rek mm-hmm. mu beesal ko ba ñu xam ne kër ga melul woon noonu kooku denc naa ko ñaar fukki at mm-hmm. kon question daal euh, làmb waxuma la làmb mm-hmm. waaye Sénégal a ñàkk waaw Sénégal a ñàkk nit ku dëggu nit ku baax am nañ fu ñu tegoon maag Ipo Ngaari. Ipo kaay baal ma tonton Ipo ñëw rek benn yoon kaay. am kaay rek ñu bokk tonton Ipo kaay rek kaay. dafa am fu mu tegoon foo xam ne waaw parce que ci laa jëm si ñu def koy ñaanal yàlla rek oh, yàlla bu ko cat jiitu ci mm-hmm. bameel mm-hmm. mm-hmm. boo gisee li ko gunge démb ca armel ya ñu ñu ñu ñu dugg biir armel armel ya ñuy nodd ñu di ko dugal ci biir kàmb gi ñuy julli te sëñ ab laat doon doon wasilaam démb doon anniversaire sëñ ab laat dëgg la ah, sëñ ab laat bu koy yàlla na ko malaayka mi yéen waa kay tonton Ibou Ngari eh. dégg nga li baay wax yéen yéen a perte balaa muy wàcc ci njabootam yéen yéen a perte bala muy wàcc ci àddina nan nga dunde tey jii Gaston bi leen wan ginnaaw gëm yàlla ba mu mat sëkk rek eh. xam ne ku ci nekk yaa ngi sa ticket de numéro ba nga xamul oh. tey nag tuuru Gaston la eh. waa ëllëg tuuru kan la kenn xamu ko yàlla rek a xam moo tax booy dund jubóoloog say mbokk di def lu baax ci say dëkkandoog ci say am di jàmm tey Gaston bu ko gisee tant bi fees am di jàmm yeeg xarit yeeg loolu yëpp moom moo ko ji li nga ji rek moom ngay dexi Gaston nit ku baax la woon bu dul xëbër xëbër yi lu mu la wax balaa 30 minutes mu woo la téléphone na la baal ma nag loolu yëfu jullit la boole ko sowe ñu bari ndax xale yi nga xam ne dañ doon mbëkk gaal gi yàlla Gaston am na liggéey bu rëy bu mu ci liggéey tey mbër yaa ngi am ay kër am ay oto am ay jabar am ay doom ñu ci bari yàlla ak Gaston la liñ koy mënal mooy ñaanal ko yàlla mi nga xam ne mooy buur te mooy bummi te moo leen maa fii ni maa leen li fii jële yàlla jële na ko fi yàlla na ko yàlla xaare àjjana xaare xaare mbooloo mu ci ndax dégg nga tonton Ipongaari macha allah mu wax boo ko xoolee xool leen Ibou Ndiaye ñoxo baay di nga xam ne tey ñoom am nañu perte yëg nañu ko di nga xam ne seen xol yi neexul boo xoolee seen image di nga xam ne seen xol naqari na tubaarkàlla macha allah. père tonton nijaay kaay ah damaa ñëw defal ko hommage de macha mi nga xamante ne moo ubbi ëttu ndaanaan yi te jigadiwul aji ngoy caali mii rakkam ma bokk ak moom lépp. nijaay da nga am perte bu mag tey Gaston Xaali na yàlla yërëm ko. amiin maa ngi woon Touba ci màggalu Cheikh Abdoulaat. Mm. Cheikh Abdoulaat la yaakaar. Mm. ci bisu Cheikh Abdoulaat lañ ko denc. Oh. loolu rek doy na. taxawaayam mm. jëfam ngoram diineem waaye xam boppam bëgg njàmbur oh. Gaston lu ma am Louga ko ko gënal. roy na Alaaji Jiili Mbay mm. ci bëgg Louga lamb tëggal na Louga ay lamb ay yoon yoon yoon kon yàlla na ko yàlla sama borom xare àjjana bu nit faatoo nag yoonu armée lee mokk mm. ka dem moo baax waaye bu si gil ligaale bare kam bàyyee baax xale yi mu fi bàyyi mm. nañu góorlu am jom taxaw ci seen ginnaaw bàjjen Aminata Mbeng te yéenay Gaston ñu yeggaleel ko ko muy makaraki rakkam mm-hmm. di la ko jaal di ko jaal njaboot gi yëpp di ko jaal sunu jigéenu bopp mm-hmm. may mun a nduur fay may mun a mm-hmm. lu xew ci réew mii daañu ko dellu njukkal ngir jomam ak ngorom ak bëgg Sénégal jërëjëf jërëjëf jërëjëf Ndiaye jërëjëf dégg nga li sama Ndiaye Ablaye Mbaye Peex wax waxati na ko jàmbaare jigéen ji di may mën a nduur fay borom 7TV la télé qui nous ressemble tele bi ñu nduru ba nopp di ñu dajale tey moo ñu dajale waat fii ci naqar kër Gaston Mbengue tubaarkàlla ñu ñëw defal ko xew-xew Doudou Ndiaye Mbengue lañ fi fekk sama frère sama cousin macha allah ku ko gis xam ne nit la koo xamante ni ku bàyyi xel ay nawlem la Doudou Ndiaye lu xew dañ ko ci seen tubaarkàlla macha allah tey nag ñu am perte bu mag Doudou macha allah garçon xaali xew-xew ñëw tey fekk na fii ci dëj bi ñu ko ko rendre hommage may mën a dul fay la télévision 7TV Doudou noo waaw xanaa sant yàlla rek julli ci Yonent bi di wax inna lillahi wa inna ñaanal yàlla ak yonent bi Sëriñ Bamba mi nu bokk fa mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jóge dafa nekkoon sama mag mais nekkoon sama xarit loolu nag moom ma njëkk a fay kase ci làmb Gaston Mbengue moom ma njëkk a fay kase ci làmb nekk nit ku baax nit ku gore nit ku am fulla nit ku am fayda nit ku am personnalité bëggoon président Macky Sall loolu nag waaj donc yàlla na ko yàlla yërëm di koy jàlle njabootam gépp di ko jàlle soxnaam yi damay soog a dugg si ni pour jàlle Aminata Mbengue Ndiaye di jàlle euh, njaboot gépp rek di ko ñaanal yàlla rek fa mu jóge daal fii mu jóge yàlla na ko ya fee muy jëm yàlla ko gënal fii mu jóge ci barke Seydina barke Seexul Xadim yàlla may leen xolu muñ ne mm. ñàkk waajur dafa métti man xam naa ci dara keroog ba sam papa gaañu laa ilaha illallah keroog laa soo ko comprendre lan mooy waajur waa ñàkk waajur dafa métti surtout baay bu baax dafa métti Gaston dafa am jom bëgg njaboot la sam papa meloon la mel ci njaboot bëgg njaboot di daw ngir njaboot lu mu am jox njaboot bëgg njaboot nekk ci jàmm tey tubaar fakkaal la ah tubaar fakkaal la macha ay njabootam merewul ko ndax kat tubaar fakkaal la lu mu bon bon bon liggéey na fi liggéey goo xamee ni am na ci bàyyi yu bëri tey mi ngi ñaan yàlla mel bàyyi bàyyi ñun bàyyi li mu bàyyi njabootam bu bàyyi ko seen i njaboot yàlla na yéex dégg ngeen Doudou Ndiaye Mbengue mu alaaji Balla Naar Mbengue waaye mu Njeng Ndiaye mu Ndey Mari Ndiaye gawlo li mu wax Gaston ci lu rafet nee na moo ko njëkk a fay cachet ci làmb kon euh, Gaston dem na tey àjjana waaye marqué na ay empreinte am waaw soxna si ginnaaw ba ñu sante yàlla jul ci yonent bi yëkkati baatu inna lillahi wa inna ilayhi tey ñu fekk la fii ci hommage bi 7TV di rendre Gaston Mbengue muy xew-xew lu fi sa tànk ak lan nga ci xaar. xanaa féddale kóolóore sama digganteeg moom rek c'est madame Khady Thiam Seck présidente des communicateurs traditionnels de Fatick nekkoon chargé communication le maire de Fatick Matar Ba ministre des sports le champion d'Afrique Gaston en 1996 laa ko xam. boo ma ànd ak docteur Alioune Sarr ancien président CNG de lutte maa leen toogaloon drapeau chef de l'état Fatick depuis booba ba tey ma nekk ak Matar ba huit ans trois mois trois six mois trois jours en tant que chargé de mission chargé de communication ma gën cee xamante Gaston mu nekk sama xarit waaye ma koy gaale madame la présidente Adja Aminata Mbengue Ndiaye nga xam ne c'était l'ancien ministre de la femme fekk ma Fatick à plusieurs fois Gaston nekkoon nit bu baax nit ku social nit ku généreux yal na ko yàlla xaare àjjana yal na xippee àjjana mu nekk xarit tamit sama benn xarit muy Aya Pouy amoon témoignage bi mu def ci làmb bi fii ci Sénégal kenn dootu ko fi def mu bàyyi fii relève nag muy makkaan mbeng doomam ma koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla lafal cat yal na sut papaam euh, fi li papaam def yal na def lu raw njortam merci beaucoup jërëjëf soxna si macha allah waaw li ma waxoon rek sànq moom laay waxaat ba tey ci hommage bi nga xam Gaston xaali Mbeng macha allah allah ñu fekk fi nag Amadou Mbaye Garmi waaye fekk Sala Bigué doomi ndeyam waaye fekk àll EHBK yi doomi ndeyam tubaarkàlla fii ci hommage bi nga xam ne moom la 7TV di rendre ah Gaston xaali Mbeng di yëkkati nag baatu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun papa nu ngeen xëyee tey nu ngeen dundee lii perte bi Sénégal am perte bi àddina am waaye perte bi lamba am. waaw jërëjëf aji xanaa rek euh, di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dañu ñàkk ku baax dañu ñàkk ku yaru dañu ñàkk ku yiw koo xam ne kii dañu àndoon ànd bu rafet a rafet ànd nag bi nu àndoon ak moom moom sàmm na ko def ko àndu nawle Gaston lépp loo xam ne lii xeloo na ko ci làmm dañ ci daan ànd ak moom ànd bu rafet a rafet ànd nag moom wër Sénégal ànd nag moom génn réew mi dem bitim réew ak président Youssou Ndour mu baax mi ndax bés bi ñu tëggee làmb lépp moo ko coordonné woon ma am ca man Amadou Mbaye Garmi ñaari cër cër ma am ak Gaston ak cër ma ànd ak président Youssou Ndour waaye lenn itam dafa nekk ci moom li tax ma indi ànd nawle lu mu mas a am daf ko daan bokk ak ñi nga xam ne ni tubaarkàlla ñooy mondu làmb te loolu yombul ba pare yi tamit mu man nitam loo nekk daf ciy nekk ak yow soxlaam da koy def sa soxla ba pare tamit nag mu am lu mu jëf ci làmb bu kaat-kaat yi amee Gaston kër yi mbër yi bàkkoo Gaston promoteur yi jóge ci làmb tàbb ci waat ci làmb xool ni Gaston mel moo tax ñu wàll si ci làmb ñàkk nañu nag nit ko yàlla baaxal ku soutenir ay bokkam ndax am itam day xaalis su lay sargaan mi ngi nii toog te bu communicateur amee ci réew mi daa jaar ci président Abdou Diouf mu jaar ci Aminata Mbengue mu jaar ci Mamadou Mansour mu tàbbi ci ñun lu ko war ci biir famille mi yëpp def na ko suñ na nee dëgg-dëgg ñaari sooda yi ñoo leen meññ sooda sàmm ak sooda faal da naan Gaston ak ak ak so ak ak Aminta ñoo bokk ndey ak baay waaye nag seen ñaari ndey dañoo nàmpalante doom yi moo kon ñoom ñaar noo bokk ndey waaw waaw waaw kon tamit dëgg-dëgg nu jaal ko nag soxnaam yu baax yi awa faal mu baax mi ak soxna Mariem ñàkk nañ daal koo xam ne kile walaay dëjëm nii mu mel nii rek la war a mel waaye ci tur nag fa mu jëm ndax bi ñu ko gisee léegi yàggul. wallaay ci tucc fa mu jëm ndax loolu jëf na ko jëf na ko ci réew mi jaf na ko ci àdduna bi jëf na ko ci ay biiru bokkam yàlla na dem di noflaayam aji yooyu yàlla na dem di noflaayam moom la Amadou Mbaye gar wax bu làmb bu Gaston Mbengue bu Sénégal bu réew mi bu àddina sama nijaay Bécaye ku ko dégg borom Bantamba nee naa leen Sénégal ñàkk na àddina ñàkk na mais Bécaye mbay moo ñàkk wax naa leen ko Sénégal tubarkalla macha allah nijaay nan nga dundee perte bu rëy bii nga am tey ci Gaston Mbengue. waaw waaw Gaston nit ku baax. maa ah, nit ku dundal liñ doon liggéey. mu di làmb. nit ku sauvé xale yu bari. yoo xamante ne mujj nañu am liggéey mën cee taral seeni waajur comme niñ koy waxee damaa bëgg a yóbbu sama yaay màkk Gaston moom moom baat boobu moom ñoom Aziz Ndiaye ak ñi nga xamante ni ñëpp ay promoteur lañu te vraiment nan ka daan waxee gars yi it noonu lañ ko doon defee di liggéey di liggéeyloo xale yi pour affaire bi développé xanaa ci sant yàlla rek yàlla moom lu ko neex lay def ak nu mu ko neexee la koy defe ah yal na ko yàlla xare àjjana boo gisee mbooloo mi rek am na kenn ku ci yàlla bëgg wala kenn ku xam yàlla nangu na ñaanam koo xamante ne bu ñaanee ñaan nga dina ko fekk fi mu ne yàlla na ko yàlla xaree waaw loolu kilifa nga sama kilifa nga ñu def noonu di jaay tubaarkàlla dégg ngeen bekaay. ginnaaw bañ la nuyoo yëkkati baatu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun nan ngeen dunda tey li xëy xew. sant yàlla gu mat sëkk di wax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun nit ki dem moo toll noonu waaye rangoon nit mën na ko bari lay waaye bu ñëpp àndee yow jooy la say rangoon jeex. Gaston dem na kii ko mës gis-gis Gaston ay xaritam ñi mu defandoo lépp tey xoolal fii ñi fi nekk xajuñ ci stade Gaston liggéeyal na Sénégal kon duñu mën rek du sant yàlla wax ji mënta sori ndax lu ñu wax rek suñu xol tooy te ñu ngi jéem a téye kon duñu mën du sant leen may mën a nduur ñu ko koy moom it jàll su ngeen taxawee 7TV ñëw senegal gépp ñëw kon ñi ngi sant di leen gërëm Gaston na xippee àjjana firdaws tey kilifa diine kilifa aada amul jullit amul catholique amul religion Sénégal gépp a ànd ànd ak Gaston fii may waxee añ yaa ngi génn ba léegi mu mënu sax mënoo leen sax fexe ba ñëpp añ fii balu ñëpp ak lu ñu man ñi ngi koy def waaye Gaston toll noonu ci dem moo ni toll ñuy jaalaat makan yàlla may xolu muñ bu ñàkkoon Gaston te ñëpp àndu joog moom mu wéet waaye tey dëgg dëgg tey la xam kuy Gaston tey dëgg dëgg la xam kuy papaam tey la xam papaam lu mu liggéey tey la xam lu Gaston def ci Sénégal kon moom amul droit def erreur li ko war mooy xam ne fi mu jëm te daañu ànd ak moom dama ni direct ji mooy rek lañ man ni séparation am na ci waaye lépp lu mu ne dan koy ànd ak moom ba mu jeex tàkk ba mu jeex tàkk. peex daf na léegi Ablaye Mbaye peex daf na léegi su fekkoon moo toog place su Makan du tiit du raf ndax li fi bàyyam liggéey loolu yow loo ciy dolli. mbay peex du waxantu yàgg na senegal liggéey na lu ne mooy li ma wax rek Gaston senegal bu ko dégg rek dar sa bopp parce que li mu liggéey ci réew mi la bu nit ñi def lu baax ñi naan ngistal la bu nit ñi def lu baax ñi naan am na fu mu xaj waaye lii mooy firnde bi bés bii ku ne bëgg na ko waaye yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel yàlla na ko sëñ Seexuna teeru yàlla na ko sëñ euh, yonent bi teeru ci barkeb sëñ Seexuna am yaakaar jërëjëf dégg ngeen wax ju am solo ji nga xamante ni ki koy wax tey moo mooy Makan Makan mooy moom tey ci hommage bi nga xamante ni moom la ñu rendre Gaston Xaali Mbeng macha allah ñu di leen wax nag ni leen lii la leen xew-xew indi loon macha allah tabaarakallah te xew 7TV jug def ca la mu mën ndax Maimouna Ndour Faye àddina saf na ko Sénégal saf na ko waaye nag bëgg na réewam soxla na waa réewam moo tax tey mu yebal 7TV. télé bi ñu ndiru ba noppi di ñu dajale la télé ki no ko sàmm eno ko sàmm tey ñu ñëw rendre hommage Gaston Mbengue ci émission boobee ñu naan xew-xew may nag euh, nuyu Ndeye Pétaw bu baax sama rakk ji di ko ziar jërë ngeen jëf maa ngi àndoon ak Faly ci caméraman bi waaye maa ngi ànd ak Cheikh Sadbou ci caméraman bi waaye nag suñu chauffeur